Youssou Ndour moom vraiment ñëpp xam nañ ko si man Youssou Ndour euh, vraiment ñëpp xam nañ ko si man te man daje naa ku ne si àddina daje football daje naa ku ne ku ne si terrain star bu ne star mondial yëpp daje naa ak ñoom mais mosuñu ma impressionné mosuñu ma mosuñu ma fël daal mais Youssou Ndour bi ma jàkkaarloo moom vraiment man li ma bi ma taxee jàkkaarloo moom man daa mel ni man daal du woon man ko man mi nekkoon ak moom doon waxtaan du woon man kook du woon man. vraiment dama ko bëgg sama xol yàlla ma ko